auzubillahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmaani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina ci chaîne bi muy Serigne Djily TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di feddali suñu kóllëre ak suñu coxel ci yen saa yu nag rawatina ñi nga xam ne ñoo abonné ci chaîne bi di ko topp tey nag dañ leen indil gént naan ndox moom it ci gént yi nga xam ne nit bari na luñ koy laajte moom it bari na ay tegtal ak ay wuute naan ndoxum géej wala naan ndoxum dex wala naan ndoxum robine wala naan ndox mu salte ndox mu nax wala ndox mu tàng wala jigéen di ko wala jigéen ci wérul di ko naan wala ku faatu di ko naan wala sax kuy ñaan di ko naan wala ku ñàkk di ko naan yooyu yëpp am nay tegtali boppam waaye nag li ci mat a jàpp mooy li ci ëpp nag gént di naan ndox bu dee ndox mu sell moom ah, lu baax la masalan bu fekke jigéen ñuy sey moom ñaare bu fekkee dafa gént di naan ndox loolu mën naa nekk ab ëmb bu muy jël mën naa nekk ëmb ci moom bu muy jël ba tey bu fekkee koo xam ne ku ñàkk la nekk ci ay jafe-jafe ci biir gént gi mu mar lool ba yàgg moo dem ci ak dex wala ci lu mel ni géej wala mu ubbi robinet di ca naan loolu ndimbal lu muy am la ak wërsëg wuy ñëw ci moom dana tegtala loolu ba tey ñaare koo xam ne ku faatu la masalan ndax ñoom itamit waru ñuy fàtte wara ñu leen di fàtte ndax lool rek lañ dese suñu digganteeg ñoom muy li ñu suñu borom dewal ci ñoom ci gént rek wala keneen géntal leen ko ñu wax ñu ko ñoo war leen koo defal moo xam sarax la wala ay ñaan la wala ñu yitte woo seen ginnaaw kon moo tax saa yu nekk rek ma leen di bàyyi xel ci ci ci ci prime yi ndax ñu mat bàyyi xel lañ te lum yàgg-yàgg dañ leen di fekk kon di leen bàyyi xel am na solo lool moo tax gént koo xam ne nekku fi maanaam ku faatu la nga gént muy naan ndox loolu xettal lumi muy am la ak ndimbal lu muy am bu fekkoon ne da ko doon ñaanal wala nga def wala nga koy defal ay sarax wala nga koy defal ay istixfaar yu bare bari nga gént gis ko muy naan ndox loolu njàqare luy deñ la ci moom ak tegtale buy wane la li nga ko defal suñ borom nangu na ko ma ngi koy jëriñ foofa ba tey gént di naan ndox ndoxum xorom lu mel ni géej nga xam ne ndox mi dafa saf xorom wala nga gént di naan ndox moo xam ne dafa saf xorom moom itamit lu baax la wërsëg la xorom xus guddi moom di ko jëfandikoo wërsëg la wala ñu jox la ko ah, ba koo xam ne dafa feebar xam dafa nekk ci lalu hôpital wala xeen yu deme noonu mu tawat moom it ñaare bu géntee di naan ndox mu mu sell loolu ak ak ak dana tekki ak jugaatam ba tey bokk na ci liy tegtale ay jafe-jafe koo xam ne danga nekk ci biir gént gi mar bëgg naan te gisoo ndox mooy naan wala benn nga jega ndox te munoo caa jëfandikoo am na loola daal loola téye ba munoo jëfandikoo ca ndox moomee moo xam ab robinet la moo xam dex la moo xam géej la moo xam ndox la wala kaas buñ kag la waaye mun a mënoo caa jëfandikoo loolu ñaar dana tegtale lu dox sa digganteeg sa wërsëg maanaam nga gàllankoor boo tax bu tax ba mënoo sa wërsëg dëgg-dëgg mënoo caa jëfandikoo wala boog sa soxna am na ci lu dox sa digganteeg moom wala su dee dex nga bëgg caa jëfandikoo mënoo caa jëfandikoo loolu day tegtale am na kilifa gog am na lu dox sa digganteeg moom bu dee géej kazalika am na luñ doxale sa digganteeg moom ba mënoo da nga war a yegsee ci moom mënoo caa yegsee ba jariñu ca loolu ñaar dana ko tegtale ba te gént di naan ndox mu tàng moom dana tekki jafe-jafe yu teggeegut yoo xam ne jeexagut mooy ndox mu tàng di ko jëfandikoo dana tegtale jafe-jafe yoo xam ne teggi ko gut ba tey loolu it bokk na ci ñëw ubbi robine bëgg naan robine bi nag amut amul ndox wala mënoo ko ubbi ba tey loolu it gàllankoor la ci sa wàll wërsëg woo xam ne eh, am na gàllankoor ba nang ca war a jëfandikoo mënoo caa yegg gàllankoor nag buñ koy wax benn mën naa nekk liggéey mën naa nekk cat mën naa nekk rab mën naa nekk leneen nag leneen kon mbokk yi nii ab tënk la woon nag bu ñu leen indiloon ci gént di naan ndox nga xam ne di ci ëpp day tegtale njàqare luy dañ bu dee ndox moo mu ñu xam ni jafe-jafe yuy teggiku yërmande wërsëg doom ci ñenn ñi kon ngeen wéy di abonné ci chaîne bi ndax bokk na ci li koy dundal wasalaamaaleykum wa rahmatullah